salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu borom di ñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nekk tey day wax ne qad talsaul xasharatu jawaadan asilan walakin al xashara tabqa xasharatan wal jawaadu yabqa asilan xakim bi nee na euh, ndundat yu sew yi rab yu sew yi nii dox gunóor yu ndaw yeeg njiit yeeg fel yeeg yi màttaate mën naa màtt fasu naar góor màtt yu metti sax waaye ak lu mën a xew teewul moom rab sew la rek loola te it fasu góor fasu naar góor la kële wéyeey màtt na fasu naar góor du ko yokk réyaay du ko yokk honneur du ko yokk dara waaye foofu naaru góor yi màtt bu ko màtt du ko wàññi dara ci daraja wala tolluwaay eh, lim bëgg a jàngale rek mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne wax dëgg yàlla du kenn ci sa ñàkk faydale àggula sax ci waq wala ci bu doon dañuy taqdir tolluwaay mu wax ci yow loo xam ne waxuwul su boobaa jàppee ko noonu jàppal ne moom ak lu mën a xew waxam jooje mënu ko yëkkati mukk bam jot la ba waaye su waxam jooje it mënulaa wàññi mukk daraja ba ngay tolloog moom lu mën a xew rek raw gi ko rawoon day gën a yokk waaye du wàññeeku te day am ci jamono koo xam ne mën nañ ko tudde ne mooy fasu naaru góor wi ci xikma bi ci lépp rekk ci tolluwaay ci daraja ci ay jikko ci ab yar ci lépp waaye am ku ku kenn nit ku ñàkk solo ku ñàkk jëmuwaay waxal ko dara rek wax jooji lee mu naqari ko ba tax mu ne day buur di ko tontu wala di toppanteek moom wala yu ni demee su boobaa li muy jur mooy eh, dangay wàññi sa dara jeexu waaye boo ko bàyyee noonu bañ koo wuyu bañ koo faale bañ koo toppatoo nag du ko tee doon ku tuuti kam doonoon ndax loolu ku tuuti rek moo koy def waaye yow it wax gim la ko waxal du tey nga doon ku mag ka nga doonoon loolu rek la ñu bi bëgg a jàngal ñoo xam ne daal am na ñenn ñoo xam ne seeni wax sax jarula wax waxumaa ngaan danga leen di topp ndax boo leen toppee mën na am ku gàtt xel jàppee la ne ñoom doonte sax du ngeen yam waaye mën naa jàpp ne yéen a euh, waaye bu fekkee nag toppoo ko lu may danga ko bàyyi mu wax mbaa mu def lam xalaat su noppee moom ci bopp muy njëkk a yëg ni taxut mu toll ne yow mukk loolu lañu xikma bi doon jàngal tey ñu ngi sant ñépp di gërëm di jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullah